Djibril Diop euh, ñu ñu xëy jël dernier point bi mooy euh, li nga xam te ni mooy euh, tension sociale bi dëkk bi fu nekk ngi baax. waaw wàllu politique bi surtout mu ngi baax waaye surtout wàllu social bi. Mhm. démb rek ñi nga xam ñu ngi liggéey ci wàllu maire yi ñu ngi ci grève boo xam ne nee nañ ba ajjuma du duñu liggéey dañu bank seeni loxo. Mhm, te ku màcc nga ci wàllu ci wàllu municipalité. beneen bi tam mooy transporteurs yi nga xam te ni ñoo yore ndaamar yi. Euh, ñi ngi ci woon depuis yàgg na mat na une semaine. Euh, wala bokk juróom-ñeenti fan ci ren tey waaye euh, sunu sang bi sëñ Mourtala Mbacké woo na leen démb. Mm-hmm. ñaan leen ñu ajandi. Mm-hmm. ajandi ba màggalu poroxaan bi jeex est-ce que diggante bi gisuloo nii war na ay kilifa yu suruxu suruxlu suruxlu ci suuf nuur gën a apaiser gën a dalal transporteurs yi ak nguur gi waxtaan bi nga xam te ni kenn ku ci nekk di nga gis sa moroom ci li nga bëgg. waaw xam nga bu dee bu dee acteur collectivité territoriale yi man je suis conseiller municipal de la ville de Guédiawaye en même temps je suis le président de la commission d'assainissement euh, ñun yàgg nañu wax si acte 3 formation aussi yaakaar j'ai fait <laughs> def naa décentralisation parce que ñun damay participer si séminaire yu bari en tant que formateur yenn saa même je suis membre de la commission politique du dialogue national ci concertation yi si revue bi ak yëpp ba dernier travaux yi avec les experts muy auditeurs ak évaluateurs yi man si laa bokkoon ci groupe boobu. macha allah oui gis nga ñun yàgg nañu wax ni acte trois bi problème rek lay indil maire yi parce que agent municipal yi formulaire bu njëkk ba dafa am ñu leen gérer woon mais formulaire bi dafa jëm si maire yi te maire yi ñu ressource bu ñu amul ressource nag personnel bi ëpp doole te ñoom budget ñu yor seen i budget de fonctionnement ni ñuy def ba fay. te te fonds de concours bu fekkee ne état bi indiwu ko am retard mu am ay xeex politique si biir te damay fàttaliku. état bi dina koy indi mais day yéex ñu muy jox ak léegi nag bu fekkee dala compal léegi nga am euh, kii bu toll nii comme supposons maa ko doon wax ma ne nañ jël mairie Grand Dakar mu war a couvrir euh, yenn kii euh, maa ngi fàtte sax kii kii communal nga xam ne agent municipal dañu bari mairie ville de Dakar lañ léegi ñu jox ko ko moom budget boobu amu ko mu war a fay lu ëpp cinquante millions moom muy am. vingt cinq ou trente millions mais coow yi dina am parce que d' abord le fonctionnaire li ñu naan l' agent municipal dafa war a am statut au Sénégal boo waxee ñu ne am na statut mooy d' abord dañ leen war a ñu nekk ay fonctionnaires typiques di am retraite di am yëpp mais recrutement bi au niveau des mairies dafa war a am forme d' organisation ak tamit mairie yi mën a am ressource parce que tey les villes amatuñ dara waay tey bu doon am tey ji deux milliards dafay ñëw ba un milliard. Euh, lan mooy waral un milliard mooy parce que dañoo délégué yenn kii yëpp yu mu doon jël recette yi mu doon am mu dellu léegi ci communes yi léegi communes yi dañoo war a renforcer ville mais communes yi day seetaan ville bu seetaanee ville bi ville bi supposons lu ñu naan foo for fora mooy euh, loolu Macky Sall jëloon pour ñu jël si ay jeune damay fàttali chaque tur bi léegi jeunes yooyu bu ñu ñëwee ñi amoon Aliou Sall yoroon waay doon leen fay benn salaire yokkal leen léegi maire Guédiawaye ñëw ñu def diagnostic bi ne salaire yooyu mënuñu ko maintenir ak tamit personnel bi ñu jël dafa diis léegi personnel boobu bu fekkee ne mënuñu ko fay ñu ne dañ koy maintenir. te li ci yëpp ay personnel politique la ay personnel politique leen fay dañuy toog 6 mois du am salaire dañuy obligé te dañuy am droit pour récupérer seen salaire même boo leen di bàyyi. léegi léegi nag dafa laaj code bi ñu defaraat ko loi yi ñu réglementé ko le personnel municipal. ñu xool ni ñu organiser pour ñu am statut de fonctionnaire public mais bu ñu ko amul bu ñu ko amul mooy indi toujours jeexi jaaxa yi moo tax ma wax leen ko ne leen en terme de mairie mairie recette la de dépense ak prévision mairie Sénégal yi amuñu doole mairie budget d'investissement yi budget de fonctionnement bi ko mairie lépp fonctionnement la ak social waaw mais euh, mairie mairie Guédiawaye waaw dañuy wax ne lu mat ñu toll waaw ba léegi ñu ngi si négociation yi entre parce que d' abord il y a le secrétaire général on avait discuté ñu ngi si di xool nan la ñuy trouver des pans pour fay parce que d' abord il y a ak de choses yoo xam ne war na revenir maire bi parce que dafa am yu bari yoo xam ne kafa nekkoon maire da ko joxoon yenn communes yi pour nag euh, ñu mën a satisfaire la demande surtout nag si emploi yi ñu am mairie bi dañ décider ñun pour récupérer yooyu bu ñu récupérer yooyu dinañu mën a permettre au minimum ñu ñu ñu remplir ak y' a des bloca day am ay blocage surtout au niveau parce que mairie du gars yi bëri dañu yaakaar ne mais mairie dafa am lu naan percepteur municipal kooku mooy gérer lu bari mais ñu si bari dañ naan non maire bi maire bi la te boo ñëwee dafa am politique yi souvent boo defee xam nga gars yi toujours dama naan leen bu leen profité bu maire ñëwee rek ngeen ne noonu gongo non il faut que def 6 mois à 1 pour maîtriser les dossiers les documents xam personnels mais ñun bañ ñëwee dañ leen dañ leen di conserver mais dañu teg benn fiche que xam parce que am na yu bëri yoo xam ne man mënu ma ko wax maire bee ko mën a wax mais trouvé nañ fa loo xam ne musiba la. loo xam ne c' est des questions politiques des recrutements politiques. te c' est des enfants c' est des c' est c' est des fils de de Guédiawaye mënoo jékki-jékki rek ñëw dàq leen. Ah, maintenant mhm. créer nag parce que mairie expertise la laaj ak tamit une vision. surtout suñ maire yi ab maire bu fekkee ne wax rek nga tënk ak état bi ma def li rek dina nga xam ne maire boobu du jóg dafa laaj partenariat laaj connaissance laaj tamit xam-xam parce que au Sénégal dañuy fooye maire yi bu ñu fàttee ne maire yi représentant état la bu ñu fàttee ne maire yi dafa bokk ci état bokkul ci pouvoir politique dañ naan pouvoir politique la mais le maire est un agent de l'état kon donc war nañoo xoolaat les critères des maires man du ma benn maire mais dama naan carrément maire bu ci bëgg a dem premièrement il faut que d' abord sur la gestion nga am si tuuti connaissance troisièmement nga am connaissance extérieure quatrièmement nga am projet te tamit am na foo xam ne bu ñu tolloo c' est pas l'aile politique ngay utiliser obligé que di nga discuter le pouvoir central mënoo ko doo réaliser dara parce que d' abord du lu ñu la transfert dañ naan transfert de compétence mais am na si yoo xam ne du transfert y' beaucoup de pro nit naan am na yoo xam ne maire du ko mënu ko boo xool maire yi yëpp personnel bi ñuy jël yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp amuñu amuñu xaalis ñu fayee ñëpp non amuñu xaalis boobu amuñu ko ba tey ci wàllu ba tey ci wàllu géejawaay bi waaw est que tam yéen nañ ci liggéey liggéey boo xam te nii parce que ñu ngi euh, maanaam li des ci koor bareetul waaw li des ci tabaski bareetul est-ce que yéen yéen a ngi euh, góorgóorlu pour que agent yi teel a ci seen xaalis balaa ñoo dugg ci koor balaa ñoo dugg ci tabaski waaw xam nga xam nga xam nga dafa am yenn yoo xam ne yenn question yoo xam ne man du ma si mën tontu. parce que je ne suis pas le secrétaire général euh, du maire bi ñu daas beeg yooyu. am yoo xam ne c'est le maire eux-mêmes moo si mën a tontu. mais man aperçu bi ma am mooy li ma xam dinaa ko apporter au maire li ma xam te xam-xam as bu ma xam ak fu nuy jëlee ay pan pour ko mun ko régler dinaa ko bu ñu defee baax na bu ñu deful baax na ñoo bokk coalition dem maire Guédiawaye man mënu ma fa réclamer dara je suis un simple conseiller. un simple conseil de Guédiawaye même commission bu may diriger bénévolat la du benn titre boo xam ne am na ko si en tant que conseil boo xam ne population yi ñoo ko fal maintenant y a des agents yoo xam ne et des service parce que Guédiawaye ville bi am na service am na ossature bu ko gouvernement bi bu leen gouvernement bi teg sur les lii ces agents la yooyu fa nekk ñoom ñoo war a def déglu fexe xarañ ba personnel bi ñu am lu ñu créé parce que d'abord am na si ay maire yoo xam ne bi ñu ñëwee mais fekk nañ problème yi mais de petit à petit fexe nañ ba seen xarañte seen équipe bi ñu yor bu mën a compenser loolu. Ah, maire il faut nga xarañ il xam réew mi. non il nga xam il nga xam gox bi. Euh, et puis deuxièmement xam fi nga jëm. di d'ici ah, cinq ans yi fan nga jëm nan nga mën a def ba mën a am xaalis. lan nga mën a ñoŋal fan ngay jëlee xaalis fan nga ko war a def yan partenaire ngay àndal nan nga mën a négocier tamit si li partenaire locaux parce que gis nga li ngay li ngay seeti yëpp. si biti am na fi. am na ci sa biir gox gisee di nga toog sa biir sa biir koñ fekk la ngay seet yëpp am na fi. effectivement loolu moom euh, kenn du te ñun loolu mooy suñu problème li ñuy wuti yëpp am na fi. mooy préférence nationale bi ñu doon bu ñu. waaw sànq moo nekkoon suñu suñu thème kii. waaw xëy na euh, euh, dernier point bi moo nekkoon ci wàllu moo nekk ba tey ci wàllu tension sociale bi nga xam ne ci li ñuy dund. ak beneen bi mooy. li nga xam ne mooy transporteur yi comme li ñu ko doon waxtaanee sànq sëriñ bi. Mhm. indi na ci ndox bu sedd. gars yi ak yenn seen loxo est-ce que yaakaar nga ni euh, surtout ci wàllu préférence nationale bi ak transport Sénégal. waaw man xam euh, boo ko dee xool euh, privé bi ñoo ci nekk ak Dakar Dem Dikk. Mhm. te Dakar Dem Dikk bu njëkkoon li ko taxoon a jóg mooy Dakar la yem. Mhm. mooy Sotrac. waaw société du transport du Cap Vert léegi nag dem na ba <laughs> Sénégal Dem Dikk dem na ba. international bëgg international sur le plan délégué sur le plan international actuellement ñoom nee na ñi ngi xaar 1400 bus. am nañ quatre cent yu disponible nii donc est-ce que bu ñëwee est-ce que privé bi dinañ am euh, la mais mise ci wàllu liggéey bi nga xam te ni euh, moom moom lañ doon def ci wàllu transport boo ci boolee TER bi boole ci BRT bi waa xam nga man damay wax ñett ne dañu lajj ci secteur transport surtout nag transport boo xam ne dem de région en région euh, avec oto accident yi day gën a yokk même boo élargir tali dañu toll ci benn monde boo xam ne trafic yi dafa am nuñ koy xalaatee ak nuñ koy ñoŋalee nga xam ne day def day rapide troisièmement que moins d'accident quatrièmement que société yiy yëngu si wàll transport dafay am transport yoo xam ne la def mais du passager mooy moom laa waxoon mooy des lignes ferroviaires moom la dëkk boo ko bëggee développé trafic bi gaaw aviation bi ngay defar defar ligne ferroviaire benn mooy autorail yi dañ see laaj moo tax accident yi ma ne leen accident yi dina yokk même élargir leen tali di non non c'est-à-dire que parce que weñ bii daw parce que boo ne heure te nekkul ci code des transports ak lii nga xëy rek bëgg na da ngay génnee arrêté tooñ la troisièmement que secteur transport bi dafa informel syndicat yi ci nekkee parce que d'abord man mënuma gëm ci Sénégal bi ñu toll waxoon naa ko sànq les transporteurs les chauffeurs même ba apprentis yi chauffeurs yi benn amuñu couverture amuñu lenn dangay liggéey rek boo demee ba nekk mag sànni nan la. yaay obligé nekk coxeur ak yooyu. même métier boobu dañu war a valoriser d' abord métier yooyu état bi warul concurrencer les privés parce que moom moo leen war a jox marché. dakaar dem dikk dakaar dem dikk la tudd dakaar la yem bu ñu si defee Sénégal dem dikk c' est pour tuer le secteur du transport te du waru garam. gis nga et du waru garam c'est c'est voilà non ñoo bokk ay sama xarit la man sama xarit la ñoo bokk yeewi on a une échange sur beaucoup de questions mais musuma si d'accord dama ne carrément soit da koy def si région bu nekk am nu mu tudd si biir muy daw mu remplacer pour te Kaolack exactement loolu mun na nekk mais boo demee bay concurrencer ñoo xam ne si la nekk te secteur transport yooyu dañ ko war a évoluer mu dem si secteur tourisme en même temps parce que transport tourisme moo war a am ak tamit yenn entreprises yu ko am moo waral ñu nekk si secteur boobu dañu war a organiser wu ñoom maliens yi sax commencé ne ko nga xool seen bus yeeg yooyu nga xam ne di nga mën li nga jël di nga ko mën a maîtriser oto bi dina mën a tegu si yoon lu mënti am mais secteur boobu bu demee ba ku jug rek pëccxoo licence yi kenn xamul lu ñu koy joxe mais ñooñu bu ñu demee ba am ak problème ak état bi état bi bëgg leen teg des charges yoo xam ne ñoom état bi xamul lu ñuy daj mais seen lànk bi de métti parce que dina lànk benn c'est pas que ay acteurs ñu dox si gis nga day toll fenn foo xam ne da ngay réglementer le secteur pas secteur secteur waratul informel lu informel boo ciy wax di ci dox ba suba day ñëwaat secteur u Sénégal yi bu informel mu ëpp doole ci économie bi ëpp doole ci secteur yëpp moo tax suñu réew yi pour ñu bouger dina jafe nit ñi dina gën a sonn dina gën a xiif parce que état bi jógul jël jóg si parce que état bu responsable dëgg dëgg dëgg bu ñëwee danaan nan laay formaliser secteurs yi ba cadre que am si maîtrise sur le plan statistique bu grève bi amee dina am ñoo xam ne ñooñ lay waxal ñu négocier li ñuy négocier mais fii dañuy négocier ba pare ñu ne leen waaw suba duñ ci respecté dara ñu koy njëkk mooy état bi boo waxee ñu ne diw la yenn saa yi ñoom ñu tooñ yenn saa yi ñu tooñ leen mais nag ñu mel ni sëriñ bi bu ko sëriñ bi bu ko waxee parce que mooy kilifa gu mag ki il faut que ñoom ñu def ko mais dañ koy làbbaliwaat ñaata yoon ñi ngi grève secteur boobu nag dafa am problème gis nga euh, tunu tutelle les ministères transport ak yooyu ak yooyu dama ne parfois ñi ngi koy jox est-ce que dayo bi seen bopp yi wala ñu nekk secteur bi ñoo xam ne c'est des techniciens du transport est-ce que dinañ réfléchir sur le devenir du transport au Sénégal dafa laaj concertation bu rëy si secteur boobu transport méngalaat transport yi ak jamono Sénégal jot na pour ñu industrialiser ko muy defar ay oto boppam parce que si la bokk Sénégal jot na pour lépp loo xam ne mais bu ñu demee ba yenn réew yi Tanzanie ba si Rwanda ak yenn dëkk yoo xam ne kenn mu seen xalaat ñi ngi dem ba seen secteur yëpp ñu koy formaliser mais ñun Sénégal wax rek moo tax man je ne suis pas d'accord si yenn kii sujets yi nee naa leen dëkk da ngay gëm ni waa dëkk ñoo mën a développer dëkk bi mais ñun dañoo gëm ni pour ñu mën a développer dañuy dem Europe moo tax je suis contre le euh, gars yi wax ay France dégage ak yooyu benn jour gii dama ne ko ñi ngay toogal nii ñëpp di wax France dégage bu ñu bu leen ambassade de France woowoon tey ne la visa ak nii kaa leen dem France suba boo leen woowee doo gis parce que gëmuñu ko ñun toujours dañuy def loo xam ne gëmuñu ko c'est-à-dire il faut que gëm-gëm bi mooy d'abord ñiy jiite am option bu leen moo tax Sénégal waratuñu fal président boo xam ne parewul dañoo war a fal président bu boo xam ne dafay dal équilibré am expérience xam fu mu jëm xam àdduna ni muy doxee te gëm réew mi. ci ci pat nga xam ne jot jotaguñu nañu ne bëgg nañu nekk président koo gis profil boobu si pour le moment mënoo ko wax ko gis parce que carte gi ku nekk da ngay déclarer dina am ñoo xam ne day gis. ñi jot a déclarer. non pour le moment on est dans les man damay jiite parti dama tëb tëb ne lii sinon boobaa da suba ñu indexé ne non xoolal rek gis nga te nous sommes dans des coalitions élect préparé coalition électorale yi war a bokk. pour mën a dem jëli réew mi mais li may wax toujours moo si sénégalais yi mënuñu fal foole lañ man bu la meree yaa fiy jóge bu subaa nag ñu jooy je l'avais en 2012 que ne un second boo ko bëggee def numéro un ay rangooñ dina bari parce que lu nekk xew si si buy jiite. tout à fait monsieur euh, euh, président de partie bi nga xam ne moo tudd Front pour la République du Sénégal euh, li nga ko waxee noonu ñu mu nekk baat bi mujj ci sunu émission dafa mel ni comme rangoñ dina bari boobu am na ci assemblée nationale ndaxte <laughs> remplaçants yi ñoo ñëw ñoo ñëw à la place des titulaires. Mm-hmm. donc di ay mbetteel rek la ñu am ci institution boobu. Mm-hmm. te yeneen i mbetteel ak perspective malheureusement pour le peuple sénégalais. ko mm-hmm. ñuy wax la sa dernier mot la. mooy dina leen sant di leen gërëm di leen wax occasion yi ngeen ñuy may moo ñu mën a permettre ñuy exprimer wu euh, ak Sénégalais yi bu fekkee ne lu baax la si yàlla lu bon la si ñun la ndax suñuy cër cëru nit lañ yor dañuy juum te di ñaan jàmm si réew mi tey wax ni ñi yor réew mi donte li leen dese bariwul pour ñu jëm si élection ngalawaay chantier yu ñu yor nañ ci boole Sénégalais yi surtout Sénégalais yi je dis que club cinquante pour cent est une très belle initiative te lu baax la euh, club cinquante euh, taxawaay bi taxaw bi ñu ko taxawal lu baax la te entrepreneur yu sénégalais yëpp homme d'affaires dañ ci war a dugg parce que bu ñu si duggul bu nekkee benn say li ñu bëgg si lañ ko mën a am di gërëm di sant tamit di wax ni am na yenn homme d'affaires sénégalais yi ak tamit yenn entrepreneur sénégal dañ leen war a dooleel accompagner leen bañ leen xeex ndax si ay question de gain de table si suuf ku mel ni Ablaye Sylla ku mel ni ak ay ñoñam ak ñeneen ak ñeneen di la sant di gërëm di ñaan jàmm si réew mi di wax ni màggalu Poroxaan bii ñu jëm yàlla na yàlla teg ñu si yoonu jàmm ñu dem ak jàmm lañ fay ñaan ci barki soxna su tedd foofu tëdd fa ak ci barke mag ñu baax nag ak képp koo xam ne liggéeyal nga suñu borom te suñu borom nangu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim